toog la dikk ak yéen mais avant que loolu Aziz juumuloo patron bee ko waxoon moo ko jëkke woon kon nag euh, <laughs> Lamine téye moon na ko quoi Samba arrête baal problème yi boo amee problème nga dijjanti ko ailleurs quoi mais vraiment gaa yaa ngi zappé voilà mbokk yi ni seetaan ci suñu rubrique c'est pas sérieux tey nag dañuy dikk ci màkkaanu américain yi nga xamante ne moom la ñu indi fii ci Almadi mais ña nga xamante ne ñoom lan fekk si ca màkkaan ga muy jaaykati soos yaax ndambe yaax óol ya <laughs> nu ngi xalaat est-ce que duñ xëy un jour ne leen da ngeen di quitter doy na waar Gervais Yao yow téye le maire buñ ko waxee buñ ko waxul yaa fi ne hein comme tu veux gauche eh quelle encore pour ya yow nii càmmoñ américain yi déménagé nanu ñëw beneen quartier boo xoolee nag quartier bi nga xamante ne fii lu ñëw mën nañu koo wax secteur Ndata Talax secteur bi nga xam ne nag moom moo nekk fii ci Almadi mun nañ wax ne Paañ Yoxos ah li nga xam ne moom mooy yéet doon béréb boo xam ne bérébu jaayukaay la jege lool ñi nga xam ne ñoom nooy askan wi tey jii nag américain yi fekk si nanu ñi nga xamante ne ñoom noo cosaanoo ci béréb bi ñoom nag ñu am xel ñaar ndax dañ leen fiy jëlee wala duñu leen fiy jëlee mais lu ci mën a am ñoom ne nanu pare nanu ngir jaay pain boulet ak li nga xam ne moom mooy pain akara pain thon bu ci namm li nga xam ne moom mooy pucc paj boo ñëwee nu jaay la bu nii nekk nag ci centre ville Dakar dañu jël quartier lëmm baare yoon bi kenn demul kenn dikkul ñuy ñaaw jortu nag ne est-ce que bu nu ñëwee fii ci Almadi du nu baare li nga xamante ne moom mooy yénn rue yi yëkkati leen te fii nga xam ne fii la ñuy daanee seen doole secteur la boo xamante ne lu waay mësaan a bëgg boo ñëwee di nga ko fa fekk lu deme ni mboroxe objet li nga xam ne moom mooy maquette man ak lu ni mel waaye tey ji nag ñëw bi américain yi ñëw tiit daal la ñu ci jële ndax nu ngi xalaat ndax bis du jot nu ne leen ayca jug leen go voilà noo ko bokk gisandoo xam naa nag euh, ba ñuy nekk ci centre ville bi dañoo jël ngandum quartier après yu baare ko vraiment ñoom américains yi ñoo bari doole mais nag noonu la yéen sax kenn waru leen déranger et puis ñooñu ne seen wet dañ foo war a jóge <laughs> visa laa bëgg <laughs> voilà ba tey mbokk yi nuy woy ni ci sunu rubrique c'est pas sérieux léegi nag dañuy dikkaat feneen fu toog am na nag ñu doxe Ziguinchor ba fii ci Ndakaaru bon xam naa nag lu jar a vérifier la xam naa ne moom loolu ci ay kilomètres fan lañ ko dox <laughs> ñaata weer lañ ko dox nee daal danoo doxee ci Ziguinchor ba fii ci Dakar est-ce que jëluñu oto ba jëm ñaajo bon <laughs> mais daal ay lacrymogène lañ leen teeroo mais bravo les alkaati là vraiment yow corote andeysaan way joko njal koy tànku neen Dakar Ziguinchor ngir bëgg xëy fonction publique ñaata kilomètre lañu dox ñaata fan lañu am ci yoon bi ak ñaata weer lañu am ci yoon wi agsi nañu nag ndakaaru waaye bilaay alkaati yi teeru nañu leen ak cuuraay gongo taalal nañu leen cuuraay ngir ka ñaxtu yi arrêté saxaar saa ngi nii di gilli nee nanu nag xëy dugg fonction publique moom mooy li nu bëggu ndax jar na ko moo ne bi nuy jóge dey Ziguinchor forme lañu indi bi la chromosome yi tàkkee ci la ñu bari ñàkk seeni dàll xoolal tànku neen yaa ngi ni ànda isaan yaakaaruma ko di Dakar Ziguinchor nu ne dañu koo dox xëy na nu jël oto ba jëm ñaajo àggale ko tànk jëm si ndakaaru waaye lu mën a am Ziguinchor la nu jóge ngiroo koy waaw jookoo njal voilà kon mbokk yi noo ko bokk gisandoo muy loo xamante ne lu yéeme la may wax na nag gis ngeen tey ni ma mel ak fi ma génne lépp bu buya belle dame couture waaye nag waaye yëmbal nooy amal conférence vraiment dan maa bëgg a soppi defaraat ma gën ma impliqué ci diine ji parce que 85 laa gëjoo dem jumaa nag bu ma waxante yàlla li fi nekk wax dëgg fa yàlla mais nag yàlla nu yàlla doolu sutura te bis bu nu yàllay rey yàlla doon jour vendredi fekk nu añ ba suur julli jumaa ba ñëw yàlla door di nu <clears throat> doon ay cadavre kon nag mbokk yi yaw yow non lu ma la bëgg a xeeb ko quoi yaaw non tu es le maire yow yaaw mais chimère yeex naa la am mais pourquoi monteur yu mel ni ay chimère yi du leen jox bagage yi nii ni nii ah mais regarde moi sax xoolal visage bi ah yaaw ah yow yaay filmer mu mel nii chimère monté mu mel nii ah grâce à vous ah mais maman Awa Tëngéej maa ngi lay nuyu ale yaaw ti farma yaaw eh, ay fi man yaaw mi yaaw eh na nga tëj coupé avec la clé